بدادي وأقلامي لمن زاز اليما كما زاز الشيطان والجهل والخما حق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات allahu akbar yàllaay buur bi tedd te sañ mooy mbër bi aw fa soob fu mu soob fa lay jaaraa allahu akbar yàllaay buur bu tedd te mooy mbër bi aw fa fu mu soob fa lay jaaraa ma tey fan nga jaar di sooliwoo sa koto fu góon yoo woon a cas cay abdu jàmbaara daaneel nga daan jaama ga rëppeel nga yéen bu ñu miin filwas yi cin yéene rës ñuy yomba kay xaaraa jël nga murit jël nga ab saadix te jël ko dëggu jël gar mi yóbbu gogor këf dëggi soldaara inna lillahi ko am rongañ na jooyle ma tey jàmbaar ju mag ji fi woon sëñ aatu jaañ naara xalbu kaaw ma joolee jooyle tey xasida daanaan lu mag la ko daan daaj loo pëlëg naara inna lillahi ma joolee jooyle bernde gu wér jaalaale addiya ndax daa ñàkk jàmbaara inna lillahi ma jole jole bepp murid saadix bu dëgg ba won kangam la karkaara ba xal bu ma jole jole yitte ju reey tànneef bu takku te way gëm doomi mam jaara dimension intellect exception idéal l'incontournable ci pas pass ki du koy ñaara jamal na cadre ya ak ñuy wote wo philosophe bop tam ci diplomate bay atu jagn nara kon dem nga ni dem nga dootuñ la gis abadan tu tank yek baayo yi kuy ji Dewan nga tàgguñu sax bañ wax la boog jërëjëf dem fay la bu ko man ndax maggi jaar jaara ya wecci ko simi ay baylaan yu taaru ta jot def tab ya ay kaala tey baf sopp kuy maara tey zen ya màgg nañu étudiant ya dooni prof di mbër la jëbbi na def réew méppi keppaara dëggal jubal rafetal teyngal ci jam su ko jar noyal nga noon yi ñu doon yabbay ci sab waara mission bi man na te ci taaxi jinaan liggéey bi nangu na cëy si aatu jaañ naara bur yàlla yàlla la fay fur yar ma ndeem nga ci yow barkeb ka xinmal yonen kongo basar saara tew feej ak xaaj ak say barke yàlla na law dal bépp jaam te sa mboor mi dolli nu ku waara ku ñàkk Muusa te am xaaru na xel wara dal waaye yuusufu fenu mbég wooteenu ak taara jàmm ak ak sutura wér-wér rafet buur yàlla yàlla na ko jox kuy bind wii saara jàmm ak ak sutura wér-wér rafet buur yàlla yàlla na ko jox kuy bind wii saara allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa say that